ñu gaa yi waa l'observateur man lañ ciy gërëm parce que dañ ko médiatiser def nañ ko journaux def nañ ko ci site yi wane nañ ko ci télé bi te loolu benn satisfaction la boo xamante ne am naa ko sama diggante ak l'observateur parce que création bi bi ko créé jëlal na ma temps mais jar na ko yow parce que bunt yu ñu ngi tijjeeku ouverture yi mi nga am ba pare esprit de créativité bi di gën a yokk à travers l'ombre boobu. la bon jëlee na ma trois jours trois jours dama jëlee yoo xamante ne matin midi soir dama ci nekk. ok est que na ci sucre boobu li nekk ci biir sama technique la nekk sama ci sama technique la mais am na papier daal moom mooy. number one waaw papier bi mu ngi ci kaw mi ngi ci suuf. mais technique bi nak mom loolu ci man la parce que exclusivité bi l'Obs moko am keneen koy amaat tamit di ko am mais exclusivité bi l'Observateur parce que ñoom ñoy number one ci journaux yi. est-ce que xaaroon nga ouverture bi mu la kiiwal yëpp parce que voyage nga partout dans le monde à travers euh, sa création boobu. non ouverture bi ouverture bi xaaroon naa ko mais yaakaaruma woon ne. ci l'Obs bi ci l'Obs bi dina dina dina dina impressionné tubaab yi parce que ñoom. L'Obs daf leen impressionné bala ñu posé ma ay question lan mooy L'Obs ma leen journal la boo xam te ni Sénégal la nekk moom lañ gën a liir moom lañ gën a jëlee te Youssou Ndour moo ko moom ñu ne ma ah ma ne waaw jëlal bu Youssou bi ak suñu bos nga moo tax ma defar L'Obs ak journal bu tudd El Dia mooy moom laa boole defar ci benn robe boo xam ne trois quarts la ñu exposé ko mi ngi instant bi Espagne ñu exposé seen télé bi tudd El donc est ce que mën noonu ñoom soo ñoom dañu waxtaan ci prix yi parce que benn festival la woon boo xamante ne uniquement man la woon. festival bi festival bi Africa Esmoda. bi nga mois recyclé nañ fa ñoo nañ nañ ko défilé nañ fa exposé nañ thème yi nga xamante ne moom lañ ko yóbbu woon l' observateur bi El bi ak yeneen journaux yi ne foofu. ak ah, suñuy partenaires yoo xam te ne fondation Hayat la tudd benn espagnol bu tudd Javier moom mooy président bi. est du lu ma jàng nag lu ñëw la naturellement nii lu ñëw la naturel yi parce que boo nekkee ci benn milieu de la mode waru la jaaxal ci ñaw lépp loo xamante ne nit war na ko mën a saw war nga ko mën a ñaw waaw wala même boo ko mënul loo xamante ne dina impression nit ñi parce que loolu la tubaab bëgg ci africain yi tubaab bi ñun lu ñu mën. ñooñ ko daax mais am na loo xamante ne ñi ñooñ ko daax parce que ñoo leen gën a di mën a jël ci mbalit bi di ci am luñ ci def. donc euh, est-ce moom lépp loo xamante ne nit da koy sol nit ñi di apprécier dama koy def. ba pare gis nañu comparaison bi nga xamante ni moom ngeen def ci défilé ak yooyu dafay nekk loo xam tamit nit yi moom la sol euh, tous les jours. non man yi may defar ci défilé yi nit ñi dañ koy sol tous les jours man dama am ñetti façon yu defee. benn façon bi mooy tenue yoo xamante ñii dañ koy sol bu dem bureau wala dem ay réception wala dem fu leen neex beneen tenue bi dañ koy sol pour soit ay événement yi nga xamante ni religion la ñu sol ko beneen bi mooy recyclage bi mën naa defar défilé boo xamante ne lépp luñ fay sol pour recycler la entreprise yi nekk Sénégal bari na ñoom ñëpp mën naa defar seen ay tenues def ko défilé boo xamante ne uniquement loolu lay doon te tëdd yooyu noonu du lu ñuy sànni dañ koy jël après exposé ko ci chaise ou entreprise bi mu nekk loo xamante ne dina nekk symbole waaw nga xam ne ñun suñu liggéey yegg na foo xam ne nit ñi ñu ngi koy jëlaat ci am leneen lu ñu ciy def parce que lox su loolu laa def ak ñoom. donc da ngay def euh, cyclage comme tu dis et tout. Mm-hmm. est-ce que xalaat nga ci euh, papier plastique yi. lépp lu ñuy sànni xalaat naa ko pour recycler mën nañ parce que lobs rek lañ la lañ lañ lobs d'or aussi. l'observateur 2014 septembre décembre ñoom ñu gis ko décembre contacté moom je ma def leen comme li ma defal lobs. léegi mën passion la création. non c'est sama passion la création recyclage.

man bëri na ñoo xam ne dañuy liggéey pour am xaalis dañuy liggéey pour am xam-xam ut xaalis dafa am ak liggéeykat. man ci liggéeykat yi laa bokk waaw ci ut xaalis mais ci liggéeykat laa bokk waaw ñu ngi sant quoi ñu ngi sant ñu ngi sant bu baax a baax. ngi sant. ah xaalis maa ngi ciy xaar mais liggéey bi mooy parce que su baaxul doo ci am xaalis. kon damay conseillé jeunes yi mel ni man bu ñu ut xaalis nañu liggéey boo liggéey xaalis day fekk si par force mu werante donc euh, lan ngay euh, jox conseil ci xale yi nga xamante dañuy gis alal li ñuy def mu xam te ne neex na leen ñu ñëw bëgg ci xale yi lenn mooy nañu jàng métier parce que métier avant tout jàng métier bu mokkee ñu liggéey teg ko ci yoon teg ko ci ay normes yu leer lépp loo xam ne mën na yokk sa expérience dama nga jàng loo xamul laajteel xam créer sa entreprise liggéey après bu ci kanam yàlla baax lan mooy sa ay projet non sooy projet bëri na am na projet yu bari yoo xamante ne ñi ngi ci nekk bi liggéey boo am na benn boo xamante ne benn festival bu war am mois de décembre tudd Afrique à son mot à dire war naa ci participer ak ay partenaires ak samay xarit yoo xam ne nga amee place de souvenir war nañ ko pare xam naa bu jege see yéen di ngeen ko jot parce que bi war nañ fi ñëw incha allah ñi ci loolu daal pour l'instant ak année prochaine ñi ngi xaar yeneen te yoo xamante ñi ngi koy recycler ne Sénégal la rek mais exclusivité bi l'observateur sa amour ci l'obs. Euh, non sama amour ci l'obs moom dafa yàgg man bañ naa ko ba. TFM laaj seen TFM laaj seen parce que man li ma bëgg a gis man foofu laa ko gisee quoi moo tax. su ma dañee moom mooy maa ngi sant di gërëm ñi nga xamante ne ñu ngi may soutenir di ma jàppale ba pare gëm li may def parce que soo amul ñoo xamante ne jàppalewuñu la gëmuñu li ngay def pour nga am courage yu dem du yomb mais man dama gëm ne li ma nekk war na ma mën fu nekk ci monde te man dinaa yóbbu lox su fële ci monde bi loolu dafa laaj. Euh, ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi nekkoon ak ki nga xamante ni euh, moo di euh, Alioune Sène Alioune merci Fama.